ngeen ànd boobu ba léegi di liggéey compagnonnage bi nga xam ne euh, moom ngeen am ak euh, Benno Bokk Yaakaar wala ak APR ban bilan moom nga ci mën a def. Euh, seeluñu suñu suñu suñu parti ci Benno Bokk Yaakaar. soo soo soo waxoon ci biir APR moom kon da ngay tooñ carrément. <laughs> moo tax ma jël parce Benno Bokk Yaakaar kuréel la boo xam ne mun nañ ne bokk nañ ci ci ñu ko sànc hmm. Euh, kon lépp lu koy dëgëral lépp lu koy jëmale kanam euh, parti socialiste da cee war a taxaw. Mm-hmm. yaakaar naa ne euh, ñi am seetlu politique xam nañ ne benn bokk yaakaar dund bi mu am ci wàllu coalition moom rek moo ko mës a am ci réew mi ba coalition di am ba léegi. Mm-hmm. loolu nag li ko waral mooy ko ne ñi ko seq dañoo xam Sénégal lan mooy Sénégal fan la toll luy état ak lan la réew mi laaj. Mm-hmm. waxtu wi nii loolu nag kenn war ko kenn gënu koo xam parti socialiste. kenn gën wax koo xam militant parti socialiste moo tax sacrifice bu mu laaj. pour ñu teg réew mi ci ay raay parti dañ koy def militant parti socialiste dañ koy nangu. lii mooy suñ taxawaay ci benn mbokk yaakaar. parce que tey euh, bu am seetlu xam nañ ne euh, Benno Siggil Sénégal bu fekkoon na ña ko seqoon fàtte nañ seen bopp. Mm-hmm. réew mi ñor leen. kon xëy na Macky Sall du falu. mais jaratoo leen fa dara de benn. non déedéet xaar ñëw xaar ma ñëw loolu loolu sax saxaraat la rek. Mm. waaw non non non moom sacrifice yi ma wax léegi nii. dugal boole ci yooyu yëpp observation boo ci mën a def boole ko ci. Mm. ma ne euh, euh, Benno Siggil Sénégal ña seqoon bu fàtte woon seen bopp ngir Sénégal kon xëy na Macky Sall du falu waaye suñ borom moo tuddoon Macky Sall falu ba tax loolu am Macky Sall falu ci benn bokk yaakaar. li nga xam ne moom matoon kii boobu ba ñooñu euh, euh, tasaaroo woon te Sénégal yëpp métti woon ko loolu nag dañuy bañ mu daal ñu ci benn benn bu ko yaakaar moo tax lépp lu war pour ñu dëgëral ko lépp lu doon pour ñu consolider ko parti socialiste dafay pare pour def ko. yéen yéen que yéen au sein du benn poids. donc vous suñu poids moom suñu poids moom ci mi suñu suñu non non non bu ko wàññi bu ko wàññi bu ko wàññi ëpp na kaat léegi ngi nekk ci. bu ko bu ko wàññi bu ëpp na kaat. Mmh. Ah, mmh. donc donc te loolu mooy sacrifice yi wax léegi parti di ko def mmh. ce qui est vrai c'est que quoi ànd àndandoo bi ñu ànd ak APR ak yi ñu ko seqal yépp mais am na ay sacrifices yoo xam ne parti yi ñu ngi koy def mais est-ce que yéen gis ngeen ci seen bopp bu fekkee ne da ngeen di joxe seen bopp. yow par exemple yow par exemple yow fu mëndoo fee. man ku yow par mm-hmm. bi récente tournée. Mm-hmm. bu Macky Sall defoon foofu. Mm-hmm. ca euh, Kaffrine. waaw euh, Abdoulaye Abdoulaye euh, Sow. Abdoulaye Seydou Sow. def mobilisation boobu mais yow dégg nañ la ci ci mobilisation boobu noonu nga xam ne réservé nañ ko au chef de l'État lan léegi yow avec autant d'engagement ban ban ban lan la la apporter est-ce que yow. Euh, gis nga ci sa bopp li ma apporteel en tant que citoyen de Kaffrine li ma apporteel en tant que sénégalais mooy mu euh, am Kaffrine am ay investissement yoo xam ne président Macky Sall moo ko fa def Kaffrine jógee ci ci point du ma ne zéro waaye point dix dem dem dem point cent mhm. en matière d' infrastructure en matière de l'électrification en matière d' accès à mais les bâtiments administratifs Macky Sall li mu fa doon inauguré loolu rek jaroon na képp kuy Kaffrinois képp kuy dama Kaffrine nga jóg taxaw gàttandu ko ne ko jërëjëf président parce que bi nga fi bi bi bi ngay doog a yëg service Kaffrine même gouvernance da doon loué préfecture da doon loué service yëpp doon loué donc te bu ba am bâtiment boo xam ne benn la ci Sénégal képp kuy dama Kaffrine war nga jóg ne ko jaaraam président Macky Sall kon man su ma nekkee ci benn bokk yaakaar jiite ndaw ñi te ñu ndaw ñooy politique te te loolu ñu ko def. pour ay génération la kon war naa mobiliser wu ànd ak ndaw ñi nga xam ne ñi ngi sama ginnaaw ne président jërëjëf. jërëjëf ci li ñu defal waaye jërëjëf ci fi ñu jëm waaye jërëjëf ci ñu ngi ñu ngi réew mi. lii moo waral suñu taxawaay. say wax da